kon eh, li ngay def rek mooy may nu dañu tuddee bonus may ñu loo xamante ne bii askan wi seetaan ak déglu dinañ mën a mën a bàyyi xel maanaam loola ngir mën koo toppandi yaay xool ñaar yooyu ñu jël rek baaxe ko ñi nga xam ñu ngi lay dégg sëñ Modou léegi loolu li ñu ci joxe mooy surtout yaasin yetta la taf mooy mooy baat bi nga xam ne moo teqale ñaar maanaam lépp moo nekk ci digg bi moom lañu wax ne moo nekk ci digg boo ko doon peese boo doon peese alxuraan waaye baatu eh, saaru surtout yaasin boo xoolee juróom-ñaari mbubbi noonu mu ngi ci mu biinu rek beneen affaire la moom da ngay bind surtout yaasin mu biinun jo egg nga bind ko ñaata cent deux cent deux mooy lan mooy almaalu almaalu mooy lan ci baatu arab bi mooy lan mooy alal almaalu yaa mu biinu yaa mu biinu yaa mu biinu loola ngay adat maanaam loola ngay bind maanaam mu biinun jo egg da ngay yaa mu biinu yaa mu biinu yaa mu biinu ba muy nga continué waat saar bi ba egg saa mu biinun nga bind yaa mu biinu yaa mu biinu yaa mu biinu nga continué waat ba juróom-ñaari mu biinu nun yëpp jeex xam nga mi ngi ci biir wallaahi lu wér laa leen di ko kooku ci def da ko gis bu fekkee amoo gàllankoor xam nga nit nag ñaare mën naa am gàllankoor boo defee dara du ko gis waaye ba tey loolu dinaa ñëw su ko defee nga def ko bo mu nga def ko saafara demal wuti xobi guy guy yomb na xobi guy xobi guy yi nag li ca gën boo ko mënee demal alxames wala altine balaa jant bi kii bal rek loo am dikkal boole ko saafara soose nga teg ko ne sëñ bi joowoo ci juróom-ñaari fan billahi boo ko defee ci kàttanu alxuraan mbir dañuy feeñ waaw lu wér lu wér kakk nga noonu bëgg ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication da ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee nu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325